yéen yéen def ngeen opposition. Mhm. xeex ngeen ak Abdoulaye Wade. xeex ngeen ak Macky Sall. est-ce que li ñu def Ousmane Sonko nii mos nañ leen ko def barricade seen tëj seen kër kenn du dugg kenn du kenn du génn te teguñu ko amul benn ordonnance juge bu bu boo xam ne mën nañu ko présenter on nous dit juste que c'est au nom de la de la paix civile données oui, vous fois arraché votre téléphone est-ce que non. vos données personnelles ont on on ont été exposés. non c'est au mais est-ce que au nom de public ah si. Eh, eh, kaam fàttali la benn affaire. Idrissa Seck ba bu daan wuy ji Assane Ndoye da daan. Hmm? jóge fa hmm? ah attends hmm? ma ne attends attends c'est une page d'histoire. attends attends attends yow ah, xaaral waaw may ma. Idrissa Seck da daan jóge fan ok il s'arrange toujours pour jaar bunt ci université. muy xaaral rek ma wax la xaaral rek ma wax la. bu 9h jotee man je suis à l'université dañ doon def assemblée générale oui. mot d'ordre génn en masse université mhm. xaar Idrissa Seck mu ñëw mhm. étudiants yëpp gunge ko ba tribunal absolument obstruer entraver la circulation des personnes et des biens assis ah, ah, assis je te dis c'est-à-dire def cortège topp ci ginnaaw oto bi moom mu nekk ci kaw oto bi di dem. ba ville non ci kaw de. ah kay dafa ànd ak avocat bi si biir. mais bu jàll. da doon jóg par moment mais ce que je te dis j'ai j'ai mais moi aussi. mais moi aussi non non mënuñu accuser loolu. si moi ko def. moi aussi dañ naan taxaw buntu université Cheikh Anta Diop xaar ko bu ñëwee ñu ànd ak cortège bi on savait même pas lan lañ lan lañ doon def. ànd ak cortège bi ba tribunal Assane Ndoye masul yónnee ay policiers ne jëli leen ko. ne ne interrompre leen interrompre leen cortège bi bi ñu koy jël si. je n'ai pas ce souvenir là. bi ñu koy jël si premier ma ne. vers 18h 19 am na boo xam ne 16h la la yegg. na 10 heures la commencé procession oui. il est arrivé a 16 non, heures <laughs> si c'était une procession c'était l'histoire ça c'était du woon am toj am saccage du woon am mort d'homme lépp dans le calme mais, mais peut-être que bu ñu fa doon ay lacrymogène. non non ñuy doon non euh, dàqante rek la non combien fois lay doon dem tribunal ñu dem ñu pour jàppale ko supporter ko ñu dóor ñu ay lacrymogène ñu ñu jàpp leen jàpp jigéen ñi ñu ñu dàq ñu dóor ñu fii lu nekk ñu def ko combien de fois. mais est-ce que situation bi ñu teg Ousmane Sonko yéen ci seen combat politique est-ce que teg nañ leen ko. non teguñu ñu ko mais contexte yu benn. dama ko Ousmane Sonko a appelé à l'insurrection Ousmane Sonko a dit euh, cooki fin lay woote jóge Ziguinchor daan ni cooki fin bi Dakar fu mu jaar daal di mobiliser seen militants mobiliser ay nit xeex am fa wala ay affrontement mu am mort mais loolu si l'État n'a pas capacité capacités d'assurer l'ordre public mais kon duñ État. mais barricade buntu këram bi euh, vous êtes d'accord avec ça. waaw ah, mais may woon ñun dafa am une semaine. ñëpp seetaan ne Ousmane Sonko état Ziguinchor ñu war ko jox convocation ñëpp ñu barricade yi kër gi booy ay cinq mille ni kenn du fa egg ñu bàyyi ko mu toog une semaine kër def lu ko neex préparer lu ko neex soog ubbi génn doxantu daldi di duggaat ba ci initiative boppam ñu day ñëw Dakar lépp ñu bàyyil ko à son initiative privée mu ñëw Dakar ñëw ba Kolda moom ay moo ñu ñëw ba Kaffrine ñu indi ko ci Dakar mu ni cooki fin ñu ni ko tribunal mu ni du dem ñu condamné ko par contumace mu ni léegi man sama ministère télécom bi ma nee télécom Cité Keur Gorgui la nekkoon mais kenn xamut lu waa Cité Keur Gorgui di dund bu pensez que un état responsable dina bàyyi un homme public comme ça politique di ne ci dëkk bi di mën naa ni imposer sa ay moo am ay mort am ay dégâts mais xoolal commerçant yi ñàkk seen pantal xoolal sénégalais yi ci dee c'est l'occasion sax ñu jaale ñi nga xam perte nañ ci seen euh, mbokk wala ku leen jegi wu blessé yi mais kenn mas sa gis loolu au Sénégal ñu ni c'est ko une affaire privée boo xam ne waroon nañ ko régler sur le plan privé entre deux citoyens sénégalais nañ dem tribunal mu jeex ñu régler ko fa ñu lëmb réew mi ba presque mën naa ni euh, comment ça li ci per li ñu ci ñàkk en en vies humaines en en en euh, dégâts matériels. kenn xamul lu tax ñoom seen mémorandum seen mémorandum c'est l'État du Sénégal qui a tué ces Sénégalais là. non non il faut arrêter xam nga. muy moom wallaay gis nga Maymuna. Hmm. su État du Sénégal amul woon sérénité su force de sécurité yi amul woon professionnalisme amul woon une attitude républicaine ñu am aussi un président tolérant. ndax gis nga li mu wax ni il foo ko Macky sa salisse les mains pour mu pouvoir m'arrêter am na su doon ñoom xoola jeex na dan la wax ok nañ dem